deux choses différentes je peux avoir un rapport sans l'avoir produit. permettre d'avoir un rapport xam ci nekk. tout à kon nag non waxuma loolu dama la wax ne rapport mais je peux les voir je peux kon nag nañ kon nag bul wax loolu. dama la bëgg a wax ni. rapport yi du yow yaa koy publier. man ñi koy publier ñu ngi ci réew mi. te képp koo xam ne nii. concerné la dinañ publier sa bos. rapport bi daal comme arrangé wul. comme arrangé wul parce que jubóo xam nga lan mooy wax. mais ñun Mm. rapport yi terewuleen dëgg la ñi fi nekk nekk ci pression mooy ñi sàcc alalu réew dëgg ko sàcc alalu réew mi di nga ko goqi <laughs> loolu parce que acharnement xaalis na génn <laughs> ko parce que sunu sunu mayuñu ko gens quand les gens quand gens nous parlent ici de de ana rapport bi ba ñuy accuser Mame Mbaye Niang sur le rapport des vingt neuf milliards ana rapport boobu major gi c'est important pourtant, pourtant les gens ont parlé d'un rapport qui n'a pas existé. rapport yi yëpp a amatul xam nga ñun ñoo bëgg a. mais mais vous ne pouvez pas nier le rapport de l'IGF. rapport yi yëpp a amatul rapport mënoo ko nier. non loolu c'est pas un rapport. tu ne peux tu ne peux pas nier le rapport de l'IGF. non tu ne peux pas nier le rapport de l'IGF. mais la ca la ca ça ah. c'est un vérificateur qui l'a fait. c'est un pré-rapport mais la fa nekk kenn mënu ko nier. heureusement que tu l'as dit et alhamdulillah pré-rapport n'est pas rapport. dama ne dafa nekk xaalis bi. non pré-rapport n'est pas rapport. dama ne xaalis bi ñu ci lekk yow xam nga ko xaalis ba ñu ca lekk yow xam nga ko. man mii xam nga ko. man de xaw xam nga ko. man damay daaneel xam nga ko. yow mii xam nga ni xam ngeen xaalis bi rapport le débat dama ne sant yàlla loolu rek laa doon soulevé xam nga ko. non sëñ Saliou commentaire. non sëñ Saliou wax na ba pare. non waxuma non man maa jox la dama ne lépp la dak. non non Suzanne Kamara Yacine il a coupé tout le monde. rapport yi les rapports les rapports sont destinés au public. ok xam la ñii ñoo toog fii ñu ne pour le principe de de de gouvernance bu ñu defee ay rapport public bi nañ xam lan la c'est-à-dire c'est loolu moom d'accord nañ parce que rapport léegi nag léegi nag léegi nag mënuñu toog Sénégalais yi naan on a besoin des rapports des rapports des rapports des rapports des rapports ñu xëy ñu ne génne leen rapport yi ñu bëgg a tax c' de la diversion c' pas de la diversion. je suis désolé Bachir. mais mais mais n' est pas de la diversion. a besoin léegi nag bala ngay poursuivre kenn. da publier ba pare ba nit ñi am ci une idée ba pare. Mhm. su boobaa nag décision bu ñu ci war a jël au plan judiciaire ñu jël. je suis d' accord bi muy wax en tant que opposant ne il a parlé de sas mhm. il a parlé est ce que yéen doo leen dem ci règlement de compte wala ci lii. Mhm. imaginez suba. ñu xëy suba rek convoqué kenn sans pour client quand pour autant que les Sénégalais que les Sénégalais savent ce qui est dans les rapports. mais xam nga bu ñu xam ne kii ci sur la base. de rapport la jël dossier bi yóbbu ko lii. rapport yi ah mais mais loolu yoon na c'est-à-dire rapport dañ ko war a xam newul fii si règlement de compte moo tax publication rapport c'est important très bien mais ceux qui ont déjà publié les rapports qui ont fait l'objet déjà de publication leur republication lay wax ni c'est de la distraction parce que am na les rapports 2020 2021 de l'OFNAC sont ah. déjà là on est en train de parler de rapport léegi bala ngay def tour de table gis nga Bachir sénégalais yow dañ la respecté il faut nga respecté leen non déglul man maay wax parce que li ngay def di man maay wax imam attention attention non non déedéet déedéet sénégalais dañu manque de respect sénégalais je respecte les sénégalais aussi ay rapport nit ñi di ko génne war a lijjanti li ci ne nga naan distraction mais j'ai pas le droit de donner mon opinion non amoo droit waxuñu la doo joxe sa opinion mais nga joxe ko ak respect mais moo tax ma c'est subjectif mais mais subjectif non li ngay def li ngay def la subjectif la ba pare man ko nag dal président man la distraction xam nga li ma bëgg a wax nga ah. may ma tuuti ma daaneel bul ma dagg parce que li ma la ah, bëgg a wax boo duggul ci suuf si dinaa la ko wax fan yi nga fi wax bêtise di fi attaqué ministre de l'intérieur yaa yi yaa ngi def ruube nag ngeen di def gis nga ngeen di def wax leen li ñu gëm parce que bu doon yow intellectuel bu honnête nga sama wax dafa leer man dama la wax ni la ñun justice la ñuy appliquer suñu yoon nekkul ci ay rapport rapport yi magistrat yi ñoo koy gérer ak cour des comptes yaa ngi dégg loolu mooy lu sérieux mais boo fi bëggee nekk lu toll ni ab république ay nit di sonn pour transparence am bon gouvernance am nga ni loolu sérieux wul yow mi yaa sérieux il faut nga respecter sénégalais yi yaa ngi dégg parce que nag yow yaa ñu yóbbu ci niveau bi dañ la wax ni li ma wax mooy li li ñu gëm ñun ñun bon gouvernance la ñu woote. kan moo gëmul loolu la séparation des pouvoirs la ñu woote. kan moo ko gëmul baal ma daaneel bu la nga jël kàddu. moi je loolu. non yow gëmoo ko gis la séparation loolu ci lañ nekk te ci lañ fa yéenee nekk. te kenn mënuñoo yóbbu ci leneen mais dañ leen wax ni seen wax ju bari ji mënul tere ku sàcc alal réew mi doo ko génne. li mooy débat bi. merci euh, les gens là qui veulent protéger encore ici Mame pour mën a tàggatoo ñu leen di gërëm bu baax a baax Ahmed Suzanne Camara ça a été un plaisir en tout cas de vous recevoir encore une fois ci plateau wu Ndoumbelane bi ñu bàyyi la nga tàggatoo très rapidement. waaw tàggatoo bi mooy euh, bon li ñu fi wax léegi ñun amuñ ci problème reddition des comptes mais nañ ko teg ci yoon rek ba pare ñoom ñu ngi wax ne ku sàcc delloo. mais ñoom tamit bu ñu sàcc alal réew mi parce que dañ leen dénk réew mi voilà donc oh, voilà donc loolu tamit euh,